autonome en même temps sans pour temps ñuy dem ci yenn saay fii ak fii di ñaan wala di tàllal mhm. ci seen propre sueur de le fond ci la ñuy euh, demee def ay tontine ak yooyu mhm. waaye balaa may dalal euh, madame Thiam pour mhm. ñu dugg ci biir waxtaan bi am na élément bi nga xamante ne euh, avec la complicité de Ndiakhé Mbaye jotoon na ko def rek ñu suif ko te ñëwaat Tapenda commune Mermoz Sacré-Cœur ay soxna booloon nañu ca benn leket soxna si bokk ci ñi leen jiite jàpp ni mbir mi dencukaay la. Mm, kalbaas bi nag mu ngi jógee ci Adja ndax moo ko doon def ci ay quartier yu bari ñëw ba ci mami mi njëkkee mu ne ko mami pourtant war nga mën a sos fii kalbaas ci quartier mi yebal ay nit mu dugg ci kër bu ne ne dama bëgg jigéen ñi ngeen génn ñëw sama kër jeudi bu ne ngeen dajale seen pepp ak seen peppe dajale ko. tabaski ngeen am loo leen jàpp mën a liggéey jigéen ñëpp nag nangu bi calebasse bi commencé trois groupes la ñu woon ba fu mu nekk ni ñu ngi ci six groupes yi euh, chaque jeudi euh, ku nekk di nga mën a dugal deux mille ba quarante mille waaw loo am rek nga dugal bu ko defee nag bu ñu demee ba ca fin ba ku nekk li nga dugal rek loolu ngay jël. Aminata Soxna càmm di ki sos boobee leket di ñu xamal ni li waral mu am boobee xalaat bëgg soxna yee yeewoo ca goxam am ci li ñu jàpp. comme na doon def politique di ko def ñëpp xam ma ci politique ba politique boobu yàlla def mu jeex am ñu nekk ci sama gannaaw ak samay mbokk samay xarit defuñu dara moo tax ma créé calebasse bi. loolu moo waral calebasse bi bëgg jàppale suñu borom kër jàppale suñu njaboot looloo tax ñu créé calebasse bi duñu su tabaski jotee maire o maire nit jigéen ñaa ngi fay taxaw di wut ay secours bureau bureau jigéen ñaa ngi fay dem di wuti ay secours ñu ne wutiwuñu secours wutiwuñ ko fed suñu calebasse bi suñu calebasse bi ci li ñuy nat suñu dërëm ak suñu ñaar dërëm suñu tànk ba wala tabaski jot ñu dàjj ko dimbale suñu borom ko dimbale suñu njaboot dimbale suñu bopp loolu mooy bitu kalabaas bi. Linguère Debbo di kenn ci ñoom porox ndoolu na ci biir waxtaan ngir rafetlu leket bi Aminata Soxna Thiam nekkoon meeru Mermoz Sacré-Cœur teg. kon jigéen ñi bu ñu jàppee def calebasse tey mu nekk loo xamante ne euh, activité génératrice de revenu la euh, luy jàppale suñu mbokk jigéen ñi la Euh, dañ si sawar xen moo Sacré Cœur xam ne quartier résidentiel lañ nit ñi dañuy tëj seen bunt yi kenn du génn waaye moom fexe na ba dajale jigéen ñi si këram gu yaatu gi macha allah tabarfakaal la ñuy suqali nag koom-koom ndax kuy dajale sa xaalis 10 mois bu tabaski jotee nga toj ko mën see liggéey mën see am dara mën see jàppandiku jàppale si sa njaboot jàppale si sa famille ak sa borom kër loolu moo taxoon kalabaas bi jóg. nga dugal am nga siy liggéey ndax am na ñoo xam ne defuñu woon dara dañ doon xëy rek naan comme jangeen ñi di tàllal loxo waaye léegi fii ndax soxna Aminata Thiam kenn tàllalatul loxo ku nekk loo nga bëgg faj yaa ngi koy dem fejal sa bopp. natt yeeg kalabaas yi doon na lu soxna yi jox bopp loolu ci jamono yi ñu toll muy mag di ndaw ñoom ñëpp ñooy ànd dajaloo di denc seen xaalis ngir bu fet ñëwee ñu mën cee sukkandiku jàppale seen bopp ak seen ay borom kër. mu ngook ñu di ko jaajëfal bu baax moom ñàkke euh, mbay suñu rakk ju baax ji liggéey rek lay def tapen da ñu ngi lay jaajëfal euh, maman <laughs> euh, bu élément bi jàllee nag première question bu may laaj mooy nan rek la ñuy taxawalee tey ab calebasse wala tontine ndax dangay xëy rek indi sa calebasse wala teg sa kii rek woo yi wala dafa am procédure dafa am nooy jaar pour tey taxawal li nga xamante ne mooy calebasse jërëjëf Mélanie mais mm. mais remercier tamit ndaxte parce que vraiment koo xam ne la mi ngi suivre bu baax calebasse yi suñu activité de calebasse yi à chaque fois bu ñuy bu ñuy toj calebasse yi comme nañ koy tuddee en fait c'est la clôture des calebasses le partage des de l'épargne moom dafay ñëw di ñu suivre rek yooyu di def euh, un reportage donc maa ngi koy nuyu au passage waaw calebasse euh, en fait lenn loo xam ne banlieue la jóge ça avait été pour les femmes de la banlieue te bi ñu ko créé c'était pour dimbali leen pour que ñuy mun a demal seen bopp en fait moom mooy ci euh, banlieue bi mooy mooy dimbalante seen biir mais moom la ñu waxee ne en ville moom la ñu waxee l'autonomisation de la femme. de la femme. waaw donc léegi on peut dire que c'est un concept bi nga xam ne ça a été mis en place ça a été créé par plan international donc euh, normalement c'est un consultant de plan international euh, qui s'appelle Cheikh Omar que je salue au passage ñun ñëpp moo ñu formé léegi bu mu ñu formee ci calebasse yi en fait euh, les calebasses euh, concept calebasse yi ça a été importé des de de la banlieue vers la ville. léegi au passage man tam maa ngi nuyu la euh, la FEDEFEM nga xam ne foofu lañ ma formé mooy la fédération des femmes de la commune de Fann Point E Amitié foofu lañ ma formé léegi nag mu andi ko foofu bi mu ko indee foofu ñun ñu formé ñu on a formé de groupes donc calebasse nii lañ koy defee. Mhm. euh, normalement c'est un groupe de trente femmes un groupe de trente femmes léegi euh, le formateur dafay ñëw àndaale benn kees léegi kees bi dafay am ñetti fermeture fermeture yooyu c'est-à-dire que ay cadenas la ay tëjukaay la donc euh, ñi koy ñi euh, loolu c'est pour sécuriser les fonds qui sont dans cette caisse léegi nag buñ ko buñ euh, ñetti ñetti euh, euh, fermeture yooyu dafay am ay cadenas te cadenas yi ñooy ay détentrice de clé lañ koy jox. Mhm. détentrice de clé yooyu duñu bokk ndey duñu bokk baay duñu bokk kër loolu yëpp pour sécuriser fonds yi nekk foofu. Mhm. léegi bu ñu àndee kees bi ci biir kees bi tamit dafay am normalement le nombre le nombre au départ de de de de de participants c'est trente personnes. ok trente participants la ñuy la ñuy moom ngay déparé. ci trente participants yi donc dafay daf la andil kees avec trente euh, carnet de compte carnet de compte yi c'est comme un livret d'épargne moom la kii di wax y a un responsable qui disait que un leader qui disait que yéen vous êtes une une banque en <laughs> en, en miniature. donc on a des carnets de comptes donc carnet de comptes yi y en trente donc le nombre de de de, de membres au départ c'est trente personnes avec un, euh, un cachet. boo xam ne moom la ñuy moom la ñuy euh, matérialiser ces cotisations yi pour vous dire que c'est c'est un concept boo xam ne ci banlieue bi lañ ko waa banlieue lañ ko créer woon on se disait que c'est des c'est des femmes qui ne savent pas écrire ni lire ni écrire donc léegi seen euh, seen xaalis seen cotisation dañ koy matérialiser par des cercles par des cercles léegi nag mais euh, cercles yooyu le pour dans certaines parties c'est des cercles dans d'autres c'est des tampons léegi nag euh, léegi benn tampon bu nekk dafa am benn valeur moom la ñuy wax la valeur de la part léegi am na valeur yoo xam ne ça dépend suivant les localité valeur bi mun na doon mille francs mun na doon cinq 500. Mm-hmm. ou bien beaucoup plus. donc léegi yow boo ñëwee ngeen formé kii bi ngeen formé groupe bi le formateur bi ñëw wax leen naka lay tëddee parce que dafay am tamit un règlement intérieur. ok parce que ay jigéen moom boo leen dajalee moom foog nga seet noo leen di réglementer. Mhm. pour loolu chacun va de son côté d'autant plus que c'est une affaire de de de d'argent. d'argent. Mhm. donc léegi dafay am réglement intérieur bu amee réglement intérieur bi mu liir ko nit ñi bu ñu comprendre lan la ñu ñu poser ay questions ba mu wóor na leen d'accord nañu ci lii ñu daal di ñu di ko tënk léegi nag ñu daal ne léegi dañu koy démarrer ñu choisir benn jour ci semaine bi chaque semaine dañuy dajaloo. di cotiser. di cotiser léegi tamit cotisation yi tamit dañ koy plafonner en fonction de de des membres ak seen moyen léegi mun nañ ko plafonner de mille à mille francs wala ñu plafonner ko de mille au-delà de mille francs ça dépend des de de moyens des des femmes. d' accord madame Thiam sànq yaa ngi wax mais ci say biir wax da nga wax ay waxi formation mais on, on voit que y en a de ces femmes yi nga xamante ne ci banlieue bi surtout fi ñu ko jëlee noonu euh, jaaruñu ci formation dañuy ñëw rek leket la wala toog ci koñ mairie rek jël kay rëdd teg leket ku ñëw waaye ñëw euh, teg noonu euh, est ce que par rapport ak seen boss bi on pourrait pas dire que loolu mooy indi parfois coow yi nga xamante ne dañ koy nemmeeku ci biir yenn yi mooy tonti nii natt yi ak kalabaas yi parce que du jóg aussi di jur coow Euh, li may wax euh, formation en fait c'est pas une formation à proprement dite c'est une orientation dañuy ñëw wax leen comment ça fonctionne ñu leen di wax comment fonctionne la calebasse toujours nit ki nga xam ne moom mooy bëgg monte monter calebasse parce que dafay am kenn koo xam ne moo naan dama bëgg a monter calebasse comme ni ngeen ko gisee comme euh, mhm. madame Aminata Soxna Thiam la madame la le maire ex-sénatrice de de Mermoz Sacré-Cœur yow da ngay ñëw ne bëgg naa monter calebasse loolu mooy boo nee bëgg naa monter calebasse c'est que war nga am yenn capacité di diriger des femmes di diriger des femmes tëral benn réglement intérieur boo xam ne ñoom ci la ñuy jaar donc léegi loolu du soxla formation dafay mel ni genre tontine. mais tontine boo xam ne da nga koy matérialiser da nga koy da koy matérialiser avec des carnets donc alors que tontine yi fële dañu am benn cahier rek. Mhm. cahier yi lañuy wax ne ku ci nekk cotiser nga temps par mois. lii nag moom ku ci nekk da nga am sa carnet bopp li nga natt ci lañ donc on n'a pas besoin de formation mais quand même kii nekk ki nga xam ne mooy nekk présidente bi kooku moom tamit foog mu am benn quand benn benn carrure ba nga xam ne comprendre na li ñu ko wax te balaa boobu dafay échanger avec le le formateur ba nga xam ne kii mun na ko téye parce que formateur bi tamit dafay assuré wu loolu. Mhm. parce que duñ ko jox ku mu neex rek. Mhm. léegi nag bu mu assuré wu ne kii mun na ko téye parce que y a un bureau qui en place avec une présidente léegi nag mu daal ne leen ngeen dem. léegi nag bu ñu demee ba mu monté ko léegi chaque semaine bu ñuy réunir dafa leen di suivre chaque semaine dafay ñëw xool ba affaire yaa ngi jaar yoon s'il y a pas des erreurs. wala yow mais lan mooy sa gis-gis par ak euh, yi nga xamante ne moom la ñuy gis ci koñ yi madame Thiam. Mhm. su ma nee ci ko ji mooy <laughs> vraiment yi nga xamante ne dañuy toog rek dajaloo quoi. indi mm. 500 Salma joxe na 500. chaque mm-hmm. chaque mercredi mu ñëw indi 500. wala dafa am différence par rapport ak bii wala dafa am neneen nu ñu koy tuddee wala c'est pas le même cas. non ça dépend loolu moom loolu moom gisaguma ko ay nit ñu dajaloo rek ne indi leen 500 wala yooyu. loolu mais mooy nattu ko ñi. mooy natu koñe nattu koñe mooy calebasse yi en fait. waaw calebasse yi nii par rapport ak bi tout c'est tout à fait différent parce que euh, calebasse man calebasse yi may gis parfois c'est juste que yi nga xamante ne comme ni ñu koy waxee rek. par chaque chaque mercredi ñu ne maire yi euh, tey chaque mercredi cotisation bi mille francs la. Hmm. chaque mercredi da ngay gis ku indi après mois bii nii ñu ne kii moo teggi wala lii moo teggi wala nii. léegi ça dépend. xam nga calebasse bu nekk dafa am particularité. Mm-hmm. ku ci nekk da nga am sa particularité gis nga je vous donne un exemple am na ay calebasse yoo xam ne dañ ko defar pour les pour les pour les femmes qui détiennent des des des des tables c'est-à-dire euh, mooy mooy ñi nga xam ne ñooy jaay ci ñoo ñooy yore ay tables ci jaay gerte wala ñii di jaay ay jën ak yooyu. quelque fois du leen di organiser en ñoo ñu mën nañu def bu ñu liggéeyee ba ngoon ñu indi xaalis versé ko mhm. léegi mais ñoom seen seen seen fonctionnement bokkul ak. Euh, le fonctionnement des calebasses classique donc dama la bëgg wax ni plus ñuy avancer calebasses yi ku ci nekk da ngay ñëw ak sa façon te da ngay ñëw ak sa façon ak ni nga ko gisee calebasses koñ yi ça dépend am na ñenn ñoo xam ne dañ koy def comme ñun nuñ ko defee nii des calebasses vraiment man je peux dire que ça c'est des calebasses parce que ñun dañu am règlement intérieur bu ñu tojee calebasses yi dañuy def assemblée générale on fait une évaluation de l'année qui est passée léegi nag revoir suñu règlement intérieur demander au bureau lan moo leen arrangé léegi nag ci loolu la ñuy defaat benn règlement bu bees ñële nag ñoom ñoom c'est pas leur cas. Mhm. am na ñenn ñoo xam ne da ngay ñëw verser mais dina am ñoom dinañ ut toujours kenn koo xam ne jàng na kenn koo xam ne moo leen di bindal yenn saa yi sax mën nañu jël benn xale. boo xam ne dañu koy fay saa yu ñëwee bu paree ñu neexal ko jox ko 2000 francs mhm. mu bindal leen mais maire yi ni ngi leen di gis noonu. Mhm. même bu ñu jàngulee. xel la ñuy demee macha allah xel la ñuy demee surtout affaire xaalis moom. jigéen moom jigéen moom du ko caaxaan. waaye gis naa benn euh, euh, euh, ñooñ avec lañ koy tuddee. avec mhm. avec yi si la bokk non. waaw avec yi. avec yi oui ah. voilà am na ñoo xamante ni genre kii yore kees bi. coffre bi kër gi muy nekk ak kii yore caar bi ñu koy ubbee du bokk kii koñ bi lay dëkk kii beneen cité lay dëkk mhm. donc pour euh, prouver que vraiment sécurité bi nga xamante ni dañ koy wax ci la mi ngi ci bu baax a baax mais jamono yu ñu passé gisoon nañ fi économie solidaire mhm. président euh, Barthélémy Diaz am ay euh, kàddu yoo xamante ne waxoon nañ ko fi mais est-ce que gis ngeen seen njàppandal ñoom ñëw ci yéen ñi nga xamante ne ñoo di jigéen ñi nga xam ne tey ji booloo ngeen def benn say di teg ku ci nekk li nga am pour mun leen accompagner pour après cela ngeen mun a am benn euh, économie bu solide boo xamante ne di nga ko mën a teg pour mhm. investir quelque chose. Mhm. voilà léegi euh, man li nga wax moom dama ci ànd ak yow te loolu sax xam naa ne naroon naa ci ñëw. Mhm. parce que nit ñi euh, suñu suñu suñu kii nu mu tamit suñu njiit yi dañu war a gestu les calebasses. parce que calebasses yi ñu ngi def liggéey bu mucc ay parce que bu ma la joxee un exemple des calebasses de amina Aminata Soxna Thiam. on, les, on, on a créé ces calebasses en 2018. Mmh. Ils ont commencé avec euh, benn kii euh, benn épargne annuelle de 15 millions. 15 millions 15 millions. ñi ngi ci seen sixième année ñi ngi ci 100 millions. Mm. Hmm. ñi ngi ci seen sixième année ñi ngi ci 100 millions. macha allah c'est-à-dire que c'est-à-dire plus euh, plus euh, plus on avance. Mm. plus les gens sont intéressés. Mm-hmm. et compte de la discipline. ba pare de la rigueur. Mhm. bi nga xam ne moom mi nga xam ne mooy borom calebasse bi. Mhm. moom lay doxal ci biir calebassam mhm. yi. donc y a un sérieux donc loolu boo ko gisee lu mel ni lu mel ni le les suñuy njiit bu ñu gisee loolu war nañu war nañu gestu femmes yi. ba xool naka la ñu mën a def pour jàppale leen. parce que tamit boo seetee ba seet xaalis boobu ñuy dajale yëpp finalement. Hmm. lan lañ ciy def. période tabaski bii moo xam nga ne buñ la teggilee. ah jàppale di nga jàppale ji xëy na ci xar bi waaye di ci des aussi danga ko nar a jël rek jëndalee ko njaboot gi. ay yére ak yooyu loolu mooy doo am loo ci teg loo ci investir. loolu mooy problème bi hmm. donc léegi man sama objectif parce que man man j'appuie jacompagne j'accompagne les les calebasses. Hmm. léegi de plus en plus parce que man je suis issue d'une d'une d'une ONG. j'ai pris ma retraite. ma kii parce que am na ay ay mécanismes yoo xam ne xam naa naka laay def ba andi femme yi. Mhm. ba nga xam ne muy réfléchir ci leneen loo xam ne. Mhm. bu jëlee xaalisam rek du dem jënde ko ay ganaar wala dem jënde ko ay ay ay jesneer. Mhm. ba pare même bu dul loolu ci biir loolu tamit damay damay damay évaluer di déglu femme yi. am na ci ñenn ñoo xam ne ñu ngi ciy dimbali seen i jëkkër. am na ñeen ñoo xam ne ñu ngi ciy équipé wu. am na ñenn ñoo xam ne ñu ngi ciy jënd or. am na ñoo xam ne ñu ngi ciy jënd terrain. Ah, ay chambre à ak chambre lu nekk. mais par contre économie solidaire boobule ci loolu la ñu eggagul parce que normalement war nañu xalaat en commun lan la ñu mën a def bu ñu dajalee pactole bu tol bu toll nii. Hmm. lan lañ ci mën a réaliser. surtout surtout parce que normalement boo nee 100 millions boo ko séddalee ci 250 membres ça fait combien de combien de d' argent le montant par membre xam nga c' est pas. Hmm. pas aussi constant. c'est pas aussi constant. alors que 100 millions yi war nañu mën a jël même xaaj même bu dee 50 millions jéem a seet loolu la ñuy def boobu la tuddee économie solidaire. mais loolu tamit pour ñu def ko pour ñu mën ko réaliser. Mm-hmm. il faudrait une formation. Mm-hmm. le renforcement de capacité. Mm-hmm. de ces femmes. te loolu ça revient. ano nos à nos à nos aussi au ministère doonu euh, ci ministère bi nga xam ne ñun ci la ñuy dépendre. mooy le ministère de la femme. dañu war a gën a gestu. kalabaas yi parce que kalabaas yi fi mu nekk ne am na doole boo xam ne. Mhm. yaakaar naa ne fi mu ne ni dëkk bi sax kalabaas yi ñoo ko mhm. yore. waaw ci loolu sax day euh, teewaat. Euh, parce parce que système d'économie solidaire boobu ngay wax. Mhm. Euh, en banlieue. parce que à li nga wax noonu système kalabaas yooyu am na projet bu ñuy ne PACOP projet boobu tamit ñoom dañuy def leen pour inciter par ñu mën a maintenir. les enfants dans le système éducatif pour éviter la déperdition scolaire. si seen système calebasse boobu dañuy def lenn bu école bi ubbi xale bi déjà jëndal nañ ko fourniture scolaire à travers ce système d'économie dañuy jënd ay cahiers. ak ay livres ak yëpp pour jox ko xale yi pour mun leen maintenir beneen côté boo xam ne affaire inscription. dañ ciy jàpp. c'est-à-dire li ñuy liggéey noonu dañ ciy génnee mbirum inscription. xale yi Pikine Est la conceptualiser y a aussi Jidda Caaray Kaw. donc dañuy xool ñooñu femmes yi nga xam ne ne li nga wax seen revenu dafa modeste ñuy taaba taaba yooyu wala ay teinturière mm-hmm. ñoom ñoo doon def noonu calebasse yi léegi nag mu def nag ba nga xam ne ne dem nañ ba nga xam ne léegi bu dee école bu ubbee euh, euh, kii bi nga doon am boo amee ay njaboot bu bëri mm-hmm. sa xel bi di ngay tiit ne du ma inscrire xale yi nan laay def projet boobu comme li nga wax à travers les calebasses fexe nañ ba régler régler yooyu mhm. beneen affaire boo xam ne li nga wax yaa ngi wax ci mbirum comme noonu mhm. euh, tabaski dañuy dem ba nga xam ne sax jënd ay xaar mhm. pour essayer de de kii yeneen ak yeneen yoo xam ne ne ñu ngi koy def vraiment pour ce euh, pour vraiment euh, aider aussi les enfants qui sont victimes des des inondations mhm. man loolu gis naa ko à travers ce projet comme ñi ñu jara jàppale leen d'accord euh, madame Thiam certes euh, les euh, calebasses ont des options positives mais est-ce qu'on pourrait pas dire aussi que c'est un moyen qui qui éloigne aussi les femmes des institutions financières parce que effectivement ah, loolu parce que je vous avoue que les banques sont en train de faire la cour aux calebasses Mm-hmm. comment ça les banques sont en train de faire de la cour au parce que mm-hmm. ñoom fi mu nekk nii. Mm-hmm. xam nga xaalis yi dañ ko doon denc ci biir kër yi. mais bu xasee ba atteindre un certain montant y a un problème de sécurité qui se pose. donc léegi euh, kii euh, les les institutions financières ñoom ñi ngi déglu. ñi ngi déglu ñoom ñi xam nañu ne tel calebasse ñi ngi ñi ngi ñi ngi euh, épargner temps par an léegi ñu ngi ñuy approché. ñu ngi approché jéem waxtaan ak ñun pour ñu ubbi compte foofu. dañu proposer ay facilité et cetera yeneen ak yeneen. mais les femmes son sont toujours sceptiques parce que ñoom problème yi mooy âge yooyu waaye mooy problème âge yooyu. Mm-hmm. ba pare nee nañu ñoom bu fekkee ne denc seen xaalis rek ñooy fayloo ay âge yooyu nee na ñoom soxlawuñu loolu. Mm-hmm. mais par contre finalement xam nga ne 100 millions mënoo ko denc si kër. Mm, finalement on a trouvé des banque mm. banque yoo xam ne ñoom. Euh, ils te font ouvrir euh, des comptes épargne yoo xam ne doo am benn âge mm. au contraire à la fin de du cycle parce que normalement c'est un cycle de dix mois mm. parce que en fait calebasse yi pour kal pour euh, tabaski la boo déggee ñu naan tojum tojum tabaski par mm. contre am na am na ay calebasse yoo xam ne ñoom ko léegi mooy sa mbokk waa Pikine am na kenn koo xam ne benn calebasse boo xam ne ñooñu tamit maa leen di accompagner ñoom ñooy les UFD Union des femmes pour le développement de Pikine Ouest de Pikine Ouest avec la présidente Khady donc ñoom ñoom ñoom màggal la ñuy toj lañuy toj calebasse donc ku ci nekk ak façon bu nga kii ba pare boo leen seetloo bu baax depuis bi avec l'essor des des calebasses léegi mutu crédit mutuel yi presque kenn déggatu leen mm-hmm. dafa mel ni ñu ngi commencé fay c'est vrai ñu baal ma de ñu ngi commencé fay mm. ñu ngi commencé fay parce que les femmes sont devenues autonomes. Mm. donc man je me dis que cette autonomie là euh, autonomie de autonomie de de la femme c'est c'est c'est c'est différent de l'autonomisation de la femme bi ministère de la femme di prôner. Mm-hmm. parce que xam nga dañoo autonomisation de la femme renforcement des capacités. Mm. atelier de formation et cetera et cetera femmes yi ñoom ñooy dem ba ci seen bopp. bu ñu demee ak seen xaalis parce que ci biir xaalis bi am na épargne. Hmm. et puis y a aussi une solidarité. c'est vrai solidarité boobu elles font du social. Mm -hmm. si je donne l'exemple de madame Aminata Sokhna Thiam. Hmm. les femmes euh, de la de la MAC de Liberté 6. Hmm. daaw ñoom la ñu demoon appuyer. cette fois-ci dañuy dem seeti les enfants atteints du cancer. ñooñu la ñuy jàppale. donc il y un côté social. Mm -hmm. mais tamit xaalis boobu ñuy am maa ngi réfléchir di seet tamit des experts yoo xam ne sama xaalis yi nga xam ne mes anciens collègues. lan lañ may mën a conseiller pour que ñu ñu seet lan la ñu mën a teg pour gën a mën a avancer par rapport à ça. mais une, une toute dernière question c'était juste pour euh, avoir votre maanaam am sa gis-gis rek par rapport ak détournement yi nga xam dañ koy nemmeeku ci yenn tontine ak yi euh, loolu mooy euh, kii nu mu tëti c'est-à-dire que moom la ñuy wax kër gu kër gu nekk dafa war a am kilifa calebasse bu amulee kilifa ba pare njiit li bu amulee rigueur. Hmm. moo tax loolu dafa am. parce que man ça je l'ai vécu parce que j'appuie des femmes à à, à Pikine Ouest euh, maa leen di accompagner di leen appuyer mm. il aussi les les les Calbas de Loxol Jigéen de la SICAP rue 10 au passage muy nuyu la présidente Kiné Faye ñooñu ñëpp dafay ñoo xam ne euh, daf la wóor wóor yàlla ne bu ñu tegee Calbas yi loolu mënu caa am bu ci amee tamit loolu par par erreur la rek la. Mhm. par mun see ñàkk daal dogal la. <laughs> c'est-à-dire que bon mais du ci épargne nit ñi. peut-être que ci solidarité bi la am na dépense bu ñu bindul woon ak yooyu mais loolu mënu cee jàll. mais chaque année dañ koy rectifier. waxtu bi xaj nañu waaye nga nga tàggatoo fi mu ne nii ku doos boob bi gisatul xalaat na ni madame teggi na natt bi fi mu nekk nii moo tax amatul jàmm. ñu bàyyi la nga tàggatoo moom mi di wax ni a tellement de choses à dire c'est xam naa dinañ amaat beneen occasion. waxtu wi xoj nañu fi mu ne nii ko xuddoos <laughs> tàggatool moom waaw loolu moom moo tax ma ne doy ba kii bi temps bi ngeen ma imparti waaw incha vraiment ma leen di remercier di remercier Walf comme ni ma ko waxee mm-hmm. di ñaan dogal bi daanu seen kaw yal na ko yàlla teggi et di di di nuyu au passage euh, les calebasses calebasses euh, de ànd bokk pas-pas. Mhm. Euh, calebasses loxol jigéen. macha allah UFD de Pikine Ouest. ah waaw. fi mu ne nii waxtu wi xoj nañu. ah jigéen jëf jigéen jëf aussi avec Dior caam jigéen jëf avec Dior Thiam ñooñu tamit maa ngi maa ngi leen di nuyu. <laughs> waaw te gis ne ñoom ñëpp vraiment ñi ngi ay jigéen yu yu yu dëggu lañu.